Ok, ok, ok. Un guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Listening Nero Production. Un guerrier ne pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi Tu vaux mieux que ça, ça, ça Tu vaux mieux que ça, ça Si tu me dis que ton objectif, que ton unique but sera d'utiliser ton esprit et ton corps avec courage, alors... Je t'entraînerai. Bitch parengen pusinya sama komba Dëgg dëgg kon bay mënatuma blok sen convoi même bu ma doon seen bay lu mu yàgg yàgg ma ci seen bay job dafa saf nigga kom bibi Nima ñi ma may cons sama flow mulet leen kom gigi Lime def ci rap amul MC bu ko ñeme ne ku si rap wala boog dan newoon du ma dégg si rap bu jok jóg fay dina dégg rap di gis rap bu gën lii mi tooy xep ni nga li may def su ma ci mënul yoon jabar ba foog bu ma jéem a a de l'action bu dee rap rek mooy gaane ci doom bi xoolal ngay déggee sama fucking rhyme ci son yi sama industrie def ci buzz am ci money yëgal level bi ba concert yi sax nga gis ci naari wala boog ñu baa ngi dox dafa mel ni fi ñu jëm dafa sorewul dox muna yor jabar xale too ko sax ni ba ci am ndox munuma gis seen rab aw ma batuma la ba ci daxanteeg ñoom ku di si lis ma doon seen modèle waxal ma ko munul xëcc net sans modèle wala boog dañu newoon ma tekki ci rab du ma ci rab du ma tekki ci rab bis ma tekki ci rab du ma tekki ci rab maa nekk wala boog dañu newoon du ma tekki ci rab du ma tekki ci rab du ci rab bis dagoloni ya no boy hamloni dagoloni tak naga manu chini ya manu chi manu chi ya manu chi manu chi ya manu chi manu chi ya manu chini ya manu chini ya manu chini ya manu chi manu chi ya manu chi manu chi neuroprotection.